deram tout simplement pour bañ euh, vraiment mu mu mu nekk candidat ñëpp ci Sénégal parce que la justice est rendue au nom du peuple peuple sénégalais moo tax ñu ñu rendre la justice te peuple bi àtte nañu Ousmane Sonko ñëpp koo waxal mun la lii ñuy def ñëpp. jaay xam nga lu ko ci mën a fekk par exemple bu du ma ne sax lu ko ci mën a fekk moom président mais Sénégal euh, avenir wu Sénégal bu plainte boobu ngay wax amee est-ce que yaa ngi xalaat les conséquences. c'est-à-dire bu ñu doon suivre li nga xamante ni mooy mbirum yoon et tout ça xam nga lu ci. lu ci topp waaw non li ma la wax. Euh, li ci mën a am lépp ñun xam nañ ko benn objectif rek moo nekk derrière benn mooy faire tout pour que celui qui est porté par le peuple d'ici et d'ailleurs sénégalais yi bu élection gis nga man dama damay bu élection yi jaaree yoon 2024 balaa 17 heures résultat yi génn <laughs> balaa 17 heures maanaam sénégalais yëpp xam fan la yi jëm xoolal gis nga ñoom. le le vrai problème qu'il mooy dañ koo ragal dañoo ragal Ousmane Sonko parce que actuellement ñoom ñëpp dañoo dem ànd ci coalition tuddee ko Mburok Sow euh, ñeneen ñi layam layam yi léegi nag moom ñu xam ne fi mu toll nii peuple bi moom lañ nar a fal léegi nag ñoom ñooñu ñëpp le complot là y a tous ces tout le système bi muy combattre moom ñoom ñëpp ñoo ànd contre moom parce que xam nañ ni ñoom ñëpp bu ñu àndee bu élection yi jaaree yoon mu rey leen bu élection yi jaaree yoon maanaam xale yëpp am droit voté voté te nous la société civile nous veillerons parce que c'est ça notre rôle mooy ku nekk Sénégal ñu bañ la xañ sa droit de vote que le fichier électoral jaar yoon que ñu bañ a tripatouiller la constitution comme ni ñu ko doon defee ñun 2011 la la la société civile avec Alioune Tine mi ngi may ñuy taxaw ne bu kenn laal constitution parce que loolu mooy suñu rôle ñun société civile wax ni ku war a voté na voté ku a nekk candidat bu mu ko nekk ku war a nekk candidat na ko nekk ñun bu encadrer l' buñ ca paree nag ba jeu jeu politique bi leer ñun ñu dem toogee nee nag ñu nag ah ñun pare nañ ci léegi nag comme lépp leer na jaay ñu doole kenn lépp ngi nii teg nañ ko mbir mi ci yoon bu boobaa nag ñoom ñu nga dañuy par parloo nag ñoom ñu dem jëli seen i coalition seen i dem nekk mais ñun ñu génn ci pare ci parce que ñun suñu yoon nekku ci loolu waaye nag c'est à nous les structures intermédiaires la société civile de veiller à ce que l'état de droit soit de veiller à ce que la démocratie soit respectée de veiller à ce que dictature bañ a règne ci dëkk bi loolu mooy sunu rôle te dinañ ci taxaw incha allah. Mhm. alors euh, Dame je pense que léegi heure bi jot il faut que ñu euh, wax un peu ci lu jëm ci vaccin yi euh, vaccin yi ñëw na vous êtes dans la société civile et de la société civile naka nga xalaatee li nga xam ne naka nga gisee du moins. Euh, jéego boobu ñu def daal di indi vaccin deux cent euh, mille doses de vaccin yoo xamante ni euh, Chine ñoom ñoo ñu ko jaay d'après les autorités ñu daal di koy indi Sénégal. d'abord foofu nga départ lay départ deux cent mille doses bi mu avant muy ñëw Diouf Sarr dafa tweeté bi mu defee tweetam wax ni jox nañ Sénégal pont wu deux cent mille doses mais mi ngi waaj ñëw toog ab diir mu gaawantu dindiwaat tweet. gars yi ne ko ko dindiloo alxam ñu ñëw ñu toppam beneen diir ñu andi deux cent mille doses yi daal ni deux cent yi dañ koo jëndee deux milliards deux cent millions waaw léegi ñu def ci jàngat ñaari wax yi bu ciy dëgg don la wala luñ jën dañ ñu koo may wala dañ koo jënd mais may wax ni pays de la sous-région bi ñoom ñëpp seen seen seen doses yi ñu jot dañ leen ko may Sénégal rek moo fi taxaw naan daa te temps yi gis naa ne ñu ngi jéem a euh, barastiku naan non yan yan waaj a jënd bu budget buñ teg pour jënd yeneen parce que xam ne ni du jàll gis nga am na yoo xam ne fii Sénégal nit ñi nekkatuñ ay dof parce que ñi doon nelaw ñi doon dajante ñoo ni kërëb ci seen kaw ñoom ñëpp ñu ànd ni foccet yeewu fii kenn nelawu fii donc donc loolu déjà tey na xelu nit c'est la première chose la deuxième chose deux cent mille doses yi ban vaccin la ñu andi Sinopharm comme tu mooy vaccin chinois. Mm-hmm. président Macky Sall ak gouvernement am si ñu gis ñu ñàkk en tout cas ci boobu lañ ñàkk seen première dose en tout cas ci boobu lañ ko jël. Mm-hmm. waaw léegi SONAS ñoo noo mën a comprendre ñoom ñu jël seen deux cent mille doses yooyu naam joxe nañ ci vingt mille doses au moins de dix pour cent maye ko mais et puis président Macky Sall def ci une communication catastrophique. waaw dinañ ñëw ci loolu. ñëw mais mais ma ñëw ci donc man li ma comprendre. mooy suñu mm-hmm. jëlee seen deux cent mille waaw 200000 doses yi ñoom bu ñu ci ñàkkoo ba pare ci vaccin chinois bi am xam adduna bi yëpp nee nañ moom lañ gën a wóolu parce que yeneen yi daf ci am ñaari yoo xam dañ ko récuser dans le monde les médecins du samay wax c' est des médecins rompus à la tâche mun naa cité ay Didier Perron euh, Didier Raoult Christian Perron ay Luc montagne ñoom ñu taxaw ni baaxul mooy vaccin wu Pfizer bi ak vo vaccin wu Moderna ñu ne dañuy jaar ci méthode bu mu mës a utiliser ci nit mooy l'ARN messager ñu agir ci gène nit ki day soppi ni ko yàlla bindee. te loolu nekk un projet des Illuminati et des francs-maçons loolu aussi c'est important mais c'est un ça c'est une parenthèse loolu du du sujet tey mais loolu bu ñu nee loolu ñoom doyu leen Pfizer ñu defal bosam le DG de Pfizer le PDG de Pfizer ñu laaj ko ndax di nga mu ne non moom du ñàkku ma ak ay employés parce que dañuy bañ ñoom ñu ne ñoom ñoo accaparé wu mbir mi mais loolu leerul mais ñun li ñu jàpp mooy ñaar yooyu kenn xalaatul andi ko Sénégal ñaari vaccin yooyu moom comme vaccin yi bari nañ. benn réew mu ne yore sa vaccin ñi woo vacciné sa vaccin wu morom gis nga réew yi kenn ñi wu laal sa vaccin wu morom léegi ñëpp ni vaccin wu Chine moom ñëpp d'accord nañu moo ci tane parce que moom méthode traditionnelle bi ñu daan defaree vaccin yi yéen xamoon ñun Sénégal ak àdduna bi yooyu vaccin moom la Chine defar méthode bi mu jaare daan jaare ñii ñoom dem soppi ko wut lu bees def ko ARN message waaw mais léegi ñun li ñu wax mooy président Macky Sall ñi d'accord a ñàkkul comme nee nañ ñàkk yi ba ba mu wax ci waxam juree jooju ñàkk yi moom obligatoire mais même ñi mu ñi nga xam ne bëgg nañoo ñàkk mais naa leen yëgal ni maa ngi leen di digal man Dame Mbodj au nom de ce qui